ñaari ñaari mbir ci àdduna. Mm-hmm. Maam Seck président Maam Seck du moins docteur xam naa këri suuf xam naa ne moo doon président idée mm-hmm. dinaa ko xam point docteur moom tamit dina xam Malick Mérico mm-hmm. président ancien président Kakalab président tant tant tant mouvement taxaw dëgër du donc Rufisque dafa am benn affaire au fond fond man xaw ma réellement maam fan la jaar. maam kañ la tënkee. jaar jaar yàgg naa këri suuf à fait parce que quartier bi ñu koy defal. Mhm. Mhm. mais jot na bu ñu gisee ma sol casquette politique parce que dafa am ñaari casquette yu nit war a mhm. liggéey ak casquette politique. liggéey mooy pour sañ bopp mooy li ñuy seedeel maam mooy pour askan ak sa réew. askan bi d' abord sa réew mais moom fi nga dëkk. nous sommes des vice léegi man je me dis que ne pour moo avancer ci tënkee comme sportif moom laa j'étais président dugg ci di gërti gërti ba ma benn étape mu dugg ci politique. Mhm. en deux mille vingt deux. musuma toog réunion politique dans ma vie. Mhm. du ma politicien. moo tax ma ne léegi il faut ñu nangul nit ki tey bu ma toogee Macky Sall dama ko wax ba ko tali. Mhm. parce que man bu Macky Sall la moom la maam léegi wax ah. yorul sama ceeb mu toog ak ku ñàkk a toog. dëgg la sama yoon nekku ci bu keneen toogee Sonko wala ku mu mën a doon sama yoon nekk ci hmm. mais am naa droit nag am naa droit jël bi nga xam ne tey maa fi tollul sama bopp maa ko ñaxal sama bopp étant jeune nekk étudiant di xeexal tënge ñu juddu tey ak démb ñu bokk la université ay baru jàpp comprendre nañ li may wax hmm. ñoom njëkk a tàllal Ndiawar Touré ay bagages yi mu jox ñu logement à à la en face kër Mbaye Guèye Sène Sène Faye. Mm-hmm. ñu jël étudiants yi dugal leen ci ñu dëkkoon ci wan bi kenn du ko xam. yéen yéen yéen yéen responsable yi. ñun responsable yi. en deux en deux mille sept cinq deux mille six léegi mu def vingt ans. Mm-hmm. léegi ñooy dox ci affaire yooyu di ci dox di ci dox ba benn état bi tey ñuy gis Malick Mérico taxaw dëgg bu ko demee ba toll fii sama réew ma xool. gis naa offre yëpp y avait Yewwi Askan Wi mhm. actualité la ñuy wax mhm. y avait Yewwi Askan Wi en deux mille vingt deux ba muy dugg ci politique mhm. y avait le le marabout Serigne Moussa Fassi ya ngi yàlla yokk taxawaayam y avait l'autre là euh, Khalifa Sall y avait Bougane Barthélémy Dias y avait y avait l'autre là comment il s'appelle euh, profil bu baax bu yaakaaroon. bu ñëpp yaakaar bu ñëpp yaakaar bu dugg ci local après les élections locales loolu ñu gis. dislocation. bu garaaw tasaaroo bu garaaw. tasaaroo bu garaaw. Mhm. kii ne moo jox kii mairie bi kii mais nag dëkk organisation la. Mhm. nga xam ne foofu organisation amu fóot. Mhm. nit du nax boppam. cest à ku nekk dafa doon jéem a nax moromam pour intérêt. te man période boobu j'étais avec le vieux. ma koy saluer de passage Alioune Mar. ma fekk mu ne ma yaay président Kakalam kaay ma investir la ma bu baaxoon mhm. parce que sama sama copain yëpp ay ay jaaytaar la ñu woon quoi comme ni ñu koy waxee ay génnee ah. la ñu woon ci ville bi maam xam na li may wax maasu si lañ nekkoon. <laughs> mu ubbee ma jàppale ko. Mhm. parce que c'est c'est la. Mhm. ma jàppale ko ak Bougane. ci politique. la petite vient. ma dugg ci. def résultat wàccee su may ndijaay suma propre ndijaay daa njëkk a xañ ci politique <laughs> kii Ablaye Sow et Omar Mané mm-hmm. ñooy sama yaay fa la bokk mm-hmm. ñooñu laa njëkk a xeex au nord parce que xaw ma parce que da gis ne yow li nga xalaat ci politique ak li nga gisee ak ñoom ni ñuy doxale du benn du benn en tant que jeune nga ñëw nga ñëw nga ñëw taxaw ñu dem législatif yi Macky la invité ñu par le biais du ministre Ismaïla Madior Diop leen waxtaan boulevard bi on a parlé de Rufisque ak tamit tali dàngu bi. Mhm. ak bi ñu wax pour man loolu naa ah. mhm. mais muy demaat adduna li dox adduna li dox ba tey lii exposé mhm. man balaa may dugg fenn dinaa xool. dëgg la yeewi askan bi je me dis ne tey Sonko Khalifa Sall foofu doxatul. doxatul mu duggaat feneen ma ne léegi lan def. mu écrire benn mémorandum. toog ak Amadou nii. waxtaan ak moom. Mhm. ci ville bi. Mhm. mu ne ma Mérico dans cinq jours damay ñëw Tëngéej am lu ma war tali bi ma war a commencé foofu. Mhm. ma ne ko boo ko defee de moom dëgg sur le Saint Coran. mémorandum bi ma ko jox mu ngi ci moom ba léegi kenn xamul fi ma bokk. financement yi ñuy wax le fait que Amadou Ba recevoir mu recevoir mu recevoir mu ñu ngi foog ne moom ma ko jox. financement yi. billaahi. la jógewul foofu ci moom. wallaahi jógewul. président financement yi jógee. financement yi yëpp. waaw nit ku jàng sama papa jàngal sama papa c'était c'est un enseignant. un hmm. docteur comme comme docteur Seck. moom monsieur Marico SVT bu nekkoon Abdoulaye Seck. tout à fait ñëpp xam nañu. mu mu formé bari na. Hmm. le gars gis nga bëgg ma xam ne ne bokk ko ci kii mënu ma yóbbu en politique kan kan moo kan moo lay jàppale. man de personne man maa ngi xuus sama xuus. Hmm. di dem ak say propres moyens. mënuma sa mësa ma nekk borom daara ji transit bii ma nekk su ma liggéey bii ma yor. Mm-hmm. moom laay xosloo lu ma am bokk ak ASC yi. Mm-hmm. bokk ak waa tamit bokk ak samay jigéen bokk ak samay ndaw. dëgg la benn politicien laa la wax xaw ma sa alal nu mu mel. Mm-hmm. Amadou Ba joxuma fukki dërëm. Sonko joxuma fukki dërëm bu ma leen joxul duñ ma jox loolu laa gëm. sa bopp nga gëm quoi. waa jox ma ko 30 minutes partout ma def ko ci média bi. ak solo moom c' jàppale ngeen ko. mooy mooy trente millions yi yi wax parce que loolu ACRA bi nañ si gën a ñëw parce que xale yi am na lu mu si waajal. waaw ñu gën a dugg si bëgg ñu comprendre Malick Miricou. Mm-hmm. parce que nit di nga toll koo xam ne les gens duñ la xam. Mm-hmm. te loolu daf ma commencé di di sonal man dama bëgg ni seen parti politique yi ñuy jàpp. Mm-hmm. wallaahi azim te ngeen jàpp yàlla bu ma nekk maire. am naa droit nag saytu. gis na ñiy def fii booy yi kërti kërti yëpp bu ñu xoolee tey Omar Cissé de passage man frère lañu ci man. Mhm. Omar Cissé c'est un à moi. Mhm. tous les maires wala nga dëkk Rufisque frère laa lay jàppee mais nga dëkk Guédiawaye Pikine wala Dakar non saa yi naw la nga ci man de. Mhm. li nga bëggal sa dëkk laa bëggal sama dëkk. dëgg la mooy mais ñoom politique bi ñuy def fii c'est pur et dur. te ni ñu koy defoon ñëpp kenn dëkku ci Rufisque.

nañu waxante dëgg grave. on n'a pas vu de résultat gis ngeen nag bu ñu wax gis nga les maires yi nga xam ne sax ñoo gën a ndaw budget mhm. nekk ci ay sànjaraat yi ndaw yi. Mhm. ñu ngi réalisation mhm. si dañuy góorgóorlu. gis nga politique fànn ah, am na waaw kii mu fexe gis nga nit yërmande kese la. un leader du wax ju bari. yërmande la si jaam yi. parce que la politique c' est l' art de gérer la cité. mooy yërmande ji ñuy séddee maam c'est tout à l'heure absolument boo amul yërmande. un leader bu amul njëriñ bi dafa benn genre bu ñëw mbëkk amul njëriñ ci géej te yal na ci yàlla musal jiital vague buy ñëw di mbëkk bu amul benn njëriñ. d'accord tey boo xoolee moment tey bi ñu nekk dañ naan Omar Cissé moom lañ def maire. Mhm. waa waa waa Pastef ñoo nekk ci biiram ak waa ak ak ak PUR ñëpp. mais tey boo leen gisee kenn jàppale wu sa morom. déedéet parce que tasaaroowul tasaaroowul. tasaaroowul est na loolu amatul. léegi man nag du mu demee ci ay affaire euphorie wala daal parce que man kenn seqaluma rek. waaw wax ni kon ngay jàppale foo jëlaat kër loolu la ñu wax. ngi xaar. parce que bu ñu xoolee sa jaar jaar par rapport ak 2022. Ah. parce que commencé si municipal yi. Ah. c' était un peu euh, pour euh, certes si nga doog a dugg si politique mais pour nataale sa dayoo. sa dayoo par rapport ak li nga li nga par rapport ak li nga xam ne mooy euh, sa notoriété. Mm-hmm. si dëkk bi. léegi jàll nañ 2022 vous avez été reçu par le président de la république mm-hmm. ki nga xam ne mooy problème am recevoir na la instant bi nii euh, gis nañ li xew actuellement au niveau de Rufisque li ñuy xaar carrément maanaam c'est c'est important que su nekk di la plébiscité parce que gis nañu euh, mm-hmm. base bi nga xam ne am nga ko pour l'instant mm-hmm. léegi Malick Miricou échéance politique yi ñu dégmal kan la àndal ba ma waxtaan ak ndigal li exclusivité bi. ñu ngi ko am. ah TV Sénégal ak Sénégal. bu dee xale bu dee xale am na lu mu message léegi ne ma. saa dama saa xew xew la jëm. ma ne maa dama xaar mbir la ko doon def. non moom daal amul internet yi ko wax. internet yi internet yi ko wax. mais kenn xamu ko fu mu jëm. kenn xamu ko ça ça c'est sûr. ça c'est sûr. parce que man dama commencé. ci ci ci zéro. te loolu laa gëm ci zéro boobu laa gëm. dafa am lu ma gëm. te femmes ñu ngi koy wax moom la ñuy déglu te ligne laa ne jot na ma yegg si def ki ñu waxtaan. te nit wax si sa si sa sa si sa. si sa waxtaan. Mm-hmm. Mm-hmm. donc nag li ma bëgg a wax. jaam ñi nee nañ nga yeewi leen. <laughs> téléphone baa ngi toog nga yeewil jaam ñi. d'après analyse bi ñu def. Mm-hmm. ak baasu taxaw dëgër. ak présidente bi woote ñëpp. de préférence. Malick Mengo soutient la candidature. de Amadou Ba. ah yow ñoo bokk mbuus. loolu loolu loolu laa wax ñaari dëkk yéen ñaari bokk mbuus. loolu laa wax man. donc yaa ngi ci jàngat continuité la wax te continuité bi. man man bi muy jàngat. man xamoon naa la Amadou Ba. waaw fa la jëm fa la jëm. c'est pour la stabilité du pays.